xare ca penku ca kaw sori na mën naa xare foofu tuddoo ko gis mais boo toogee tuuti rek gis ni muy yéegee nga gis ko muy ñëw ndànk-ndànk mu ne heure boobu ci la ñu war di julli ba keroog jant bi so muy ngoon gi jàpp timis juróomi julli yooyu ñu góorgóorlu suñu kemtalaay kàttan ñu matal ko mbokk yi heure yi waxoon nañ leen ko heure julli zuhru asr maghrib yëpp isha yëpp ay julla suba tisba takkusaan timis gee waxtu yi boo dee julli yëpp la chaque da ngay maasale du rek da ngay tànn benn waxtu rek tisbaar wala nga tànn suba wala nga tànn timis wala nga tànn gee déedéet julli juróomi julli yoo xam ne dañ ko war a watt sàmm ko dooru mën a nag am yaakaar ci yàlla ak nangu mbokk yi julli googu julli farata yooyu xam ngeen li koy mottali bokk na ci nga am jàng faatiye ak saar yooyu moo lay mën a dimbali ci julli julli léeg dana am ci côté soxna yi ngant da leen di dal julli xam ngeen di wàcc kenn du teg kenn jigéen léeg ak ne la borom subhanahu wa taala bind ngant am ndaw si amoon baax gis règle am wala lu mën a doon mu toog ba guddi mu set dëgg la timis rëcc na ko gée rëcc na ko waaye nag dafa doon góorgóorlu mu am yéene mu prépare sangu pour fajar gi war a ñëw yaani mu mën a julli boo waree woor it mu woor loolu da ngay gis léeg-léeg jigéen ñi xaw a sàggan lool set ba pare waaye continuer rek wéy ci man kat sangooguma sangooguma fekk ne keroog ba sa ba nga setee rek ba nga laabee rek keroog nga war a taxaw ci jaamu yàlla googu mbokk yi julli kenn du ko def lu dul ci waxtu boo yàkkamtee ba tax nga parax parax julli lu dul te heure ba jotut ñu ne sa julli googu wérut sa julli googu wérut ki julli ginnaaw julli ki julli après waxtu wi xëy na mu am ngànt ngànt nag day am nit ki mën na nelaw mën na fàtte mën na ne ci tukki bal sax mën na feebar kooku ngànt day am waaye nay doon ngànt lu wér waaye xëy na nekk say mbir nekk ci yoo xam ne wax dëgg fa yàlla xëy na liggéey la wala nangam ba waxtu bi jàll kooku moom gënut ndax la nga mën a am ci waxtu wa ci tuyaaba doo ko mën a am ci bële kon yooyu ay mbir yoo xam ne ni ñu bàyyi ko booy tardé waxtu wi day fekk nga am euh, ngant lu ko jar moo tax borom subhanahu wa taala wax yaa ayyuha allazina amanu iza qumtu ila salaat faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarfiqin mas am sax borom subhanahu wa taala ne bu ngeen jëmee ci julli yéen ñi gëm yàlla yaa ayyuha allazina amanu wax naa leen toujours yàlla bu ne yaa ayyuha allazina amanu képp kuy jullit ci waxtu woowu képp kuy gëm bokk ci daayratul iman da nga war a déglu mu ne bu ngeen jëmee ci julli na ngeen raxas seen loxo daal di raxas seen kanam daal di masaa seen bopp raxas seen tànk xam nga borom subhanahu wa taala bi muy wax loolu fa la yem mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunna mi jàngale sunna moo ñëw jàngal ñu nag sunna moo ñëw mottali loolu jaamu yàlla yi julli jàpp borom bam ne def leen rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñëw jàngal ñu kayfiye bi ak sifa bi yàlla def na rek julli leen junju ay ki yonent bi ñëw jàngal ñu waxtu yàlla ne jàpp leen junju ay cër yonent bi ne ñëw mottali ko kon gis ngeen moom mooy ki yàlla yónni ci xeet wi kon lépp lu tudd ibaada jaamu yàlla la chaque moom mooy ki koy jàngale mu mën a wér ñu mën koo xam mbokk yi asalaa ñu ngi ci julli borom subhanahu wa taala du nangu mukk nit ki julli te amul làpp nit ki julli ta fekk ne jàppul kooku wax dëgg fa yàlla ak càggante lay doon ndax ku ne xam ne jaamu yàlla googu di julli lépp laab la lépp set la kon laab woo git xam nga ne ñaari xeeti laab ñoo am ñaari xeeti laab yooyu waxoon nañ leen ko fi xanaa di fàttali ndax ñu ngi ci nafaraat julli ci waxtu yi ñu nekk ci koor gi kon laab googu ñaar lay doon mooy nga set sa bopp laabug ndox bu ndox amul tiim a ngi fi te yooyu yëpp lu ci nekk day fekk ngànt am day fekk ngànt am kon ku njëkki ki nga xam ne kii bu dee ci wàllu làpp ci wàllu ndox kooku ñaari ñaari laab lay doon laab googu laab ci ndox bokk na ci dafa am cangaay lu ndaw ak lu mag masalante ki war a jàpp kooku ki war a jàpp ak laablu la waaye ki war a sangu farata ak laablu la kon ñaari façon lab yooyu ndox da koy soxla kon pour nga set ci yenn sobe la chaque faw nga am ndox waaye tamit gis nga islam borom subhanahu wa taala ni ñu bëggee ak nim ñu yombale ndox bu amul mu a ci waxtu woowu na ngeen daal di wut suuf ngeen tiim ndax boobaa mooy taxaw taxawaayu njàpp googu mi ngi noonu kon mi ngi noonu kon bu ko defee ñu bàyyi ci xel yow borom subhanahu wa taala ba mu naan jàpp leen lam junj mooy kanam loxo bopp ñu masa ak tànk yi ci des yonent bi saa moo ñu jàngal ñu ko waxoon naa ko léegi kon ñu bàyyi ci xel lu ci nekkit na tooy na war a tooyee na jot na war a jote ndax léeg nit ñi bu ñuy raxas seen kanam ca nañ koy raxase léeg-léeg te xamuñu ne kanam kanam lépp loo xam ne mii ba ci day dem ba ci nopp ba boo ñëwee ba ca karaw nga yem foofu ndax kanam kanam dafa yaatu léegi nga xam koo xam dañu rek daal di cof fekk da ngay tooy jël ndox mu tooy commencé ko ci nopp yi wër ba ca kaw romb kii ba ñëw ba ca kaw topp ko rombaat nopp yi ba ci sikkim ba ci suuf yooyu yëpp day dugg ci kanam bu ko defee nga tooyal ko tooyal goo xam ne dafay ànd ak ndox bu baax a baax a baax a baax mi ngi noonu bu ko defee ñu bàyyi ci xel yaa ngi sa wàll loxo yi tamit boo waree raxas foofu it raxas ba na tooy ba mu wóor na la tooy na raxasu benneel ba nga top ko bu ñaareel bu ko laaje nga ñettal ko it bu ko laaje waye bo raxé ben yoon mu toy xepit wér fexel ba bul bàyyi dara bo paré fofu say nopi sa sa bopp sa yaani sa loxo nga raxasa sa euh yi laa di raxas sa nga fiiru sa bakkan raxasa kanam raxasa sa daadi massa dem ak ñëw boole ci nopi raxasa tànk yoy boko defé da ngay daadi man inshallah taala am jàpp mi ngi nonu mbokk yi doomu day ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla googu nga xam ne làpp moo koy mottali nit ki ak sobe mënta ñàkk muy am sobe yaa war di nemmeeku sa bopp waxtu ne jamono ju ne ba saa yoo yëgee ne am nga sobe nga góorgóorlu sa kamtalaay kattan ba sobe soosu nga fexe ba mu dañ sa yaram kon waxoon nañ leen ci wàllu njàpp dana dindi sobe fexe tamit raxas lépp loo xam dafay des yaani sa sa lox sa yaram kon tamit bu ñu jógee ci wàllu njàpp dañuy daal di ñëw ci wàllu tiim tiim nag day am léeg-léeg ndax doomu aadama yàlla moo ko bind ay ngant di ko gaar te yàlla ko xam la moo tax mu ko wa yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko kon yow da nga tim léeg bo gisul ndox wala feebar nga feebar bo xam bi bii fa nga àgg yaa xam sa bopp yaa ngi ci tukki te gisoo ndox yooyu yëpp boobaa nga jëfandikoo defandoo say mbir yu àddum doomu aadama yi soxla di soxla boppam yooyu yëpp léeg nga def ko doo am ndox bu boobaa xam ngeen ne tiim moo fa sës moo tax ñu ne yow mi ne ci àll bi sax dem tuur ndox lu mu gàtt gàtt su sunna jàngale na wutal sa ñetti xeer ndax yaa ngi ci tuur nga ndox yaa ngi tuur nga ndox amoo loo wisoo wutal sa ñetti xeer boobaa dañuy wax ne nga laablu ko foofu kon mbokk yi laab dafa am solo ci nit ndax jaamu yàlla julli li ci ëpp ak laab la muy ak laablu la bu ngeen amul ndox kon borom subhanahu wa taala neen na ngeen daal eh, laal suuf bu ngeen laalee suuf seen kanam seen lox ak seen kanam eh, da ngeen daal di mën a laab ci laabu tiim kon tiim moom boo dóoree sa loxo ci suuf frotte ko fekk dindi nga say jaaro raay say kanam mu ngi noonu moo ta borom bi wax ne maa yuridu llahu yajala aleykum min xaraji walakin yuridu llahu yutahirukum yàlla day dafa bëgg rek ngeen laab moo tax tegu leen ab coono boobu coono kon ci diggante wàllu tamit tiim yooyu xam ngeen ne lenn ci boroom xam-xam dañuy wax ne tiim day taxaw taxawaayu njàpp am ñu ne boo xasee ba tiim naafile ci doo ci mën a julli farata ndax farata moo ëpp doole naafile waaye am tamit ñu ne ah tiim daal njàpp ni muy taxawee nga xam ne danga am ngant mooy taxaw taxawaayu njàpp borom xam-xam ku ci nekk am nga noo ko indi ala kulli waaye ñu bàyyi xel ne. laab dafay am solo lool ci nit ki mu bàyyi xel bu baax xam ne jaamu yàlla goo xam ne gii du ñuy woyofal lu lu ñuy nës-nësal waaye jaam yàlla goo xam ne ko def suñu kéemtalaay kàttan ci noonu ñu la ko waxee mi ngi noonu am na ñu ne tamit tiim gi bu fekkee tiim gi yow tojul lenn ci borom xam-xam fekk tojul li jàpp di taxaw mën na koo taxaw xam ne boo xasee jàpp suba ba ngoon ma nga ciy julli bu tojul kon loolu day daal di taxaw taxawaay boobu ci ñenn ñi. waaye bu fekkee yow am nga ndox fekk tiimoon nga te sangu woon nga ba bu ndox amee da ngay daal di sangu boo toogoon ab ay atit ndox am ndax léeg nga nekk situation xam ne doo am ndox day am léeg buñ ñaan yàlla mukk na tooñ lu mel noonu day am ndax yàlla lu wax rek am na demee ba ne situation boo xam ne bii amuñu ndox gisuñu ndox bu boobaa dañuy tiim sangu sangu farata waaye bu ndox feeñee dañuy daal yaani sanguwaat ak ndox mu ngi noonu kon lenn ci borom xam-xam daal ne waaw ki feebar moom feebar nga te ndox mi da lay lor ñu ne waaw kooku nu muy def ñu ne kooku day tiim ñu ne day tiim tiim googu da koy def mooy remplacer ndox mi ndax léeg-léeg tiim ndox sax dana am ci bërëb te doo ci mën a jot ki yàlla nattoo tey nga dugg ci biir kaso nga kaso ni mel léeg-léeg situation na mu mel lu la lijjanti surtout kaso yoo xam ne sax dëkkoo fa ci yéen dëkk yi waxtu bi jot na amoo ndox da ngay tiim te day am am na xam yàlla dala koy nattoo ay may ma damay jàpp ak yooyu damay jullu ñu lijjanti doo gis sax koo waxal yooyu ndax waxtu yu ba xasee ba jot julli ci waxtu dafa nekk farata boobaa dañ naan la nga tiim yaani nga daal di nga daal di julli mu ngi noonu ki feebar moom day tiim ba keroog ak wér di am waaw ñu ne ki nga xam ne ki tamit moom it ay yéreem am na laab am na yaa ni sobe kooku tamit nga xamne yére yi amna tamit sobe momit sa sobe sa fa nga xam sobe si xam nga fan la toyelal fofu bo xamul fépp maaselil fep na toy mi ngi non mbok yi mbok yi mo day borom subhanahu wa taala wax ya bani adam khuzu zinatukum inda kulli masjid na ngeen di sol rafet tarlu bu ngeen di jëm ci jàkk yàlla yi kon ndamit ngeen bàyyi ci xel ku jëm jàkk gor lu xamne ya ngi def ci yàlla gu lëy góor nag waxoon nañ leen ne cër yi mu war a muuru commencé woon wax nañ lu mu gàtt gàtt sa jumbax jàpp sa oom kooku nag xam nga ne jamono yooyu ñuy wax du jamono yi jamono yi moom lu waay sol jafewul ay yére moom macha allah kon kuy sol solo lu jot jot jot jot ndax islam day wax ci contexte bu gën a yaatu ndax léegi nga ci dëkk yoo xam ne situation yoo xam ne xëy na tey jàppandiwul waaye lu mu gàtt gàtt wutal lu mën a muur sa biir sa jumbax ba ci sa oom yi kon mi ngi noonu mbokk doomu day ñu bàyyi ci xel jaamu yàlla boobu ñu góor góorlu ci wàllu laab gi sunu kéemtalaay kàttan ñu bañ ko fooy ñu bañ ko sàggane te xam ne jaamu yàlla gi moom li koy mottali mooy loolu xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite na sahaaba yi sol ay botam di julli jibril alayhi salaatu wasalaam ñëw na ko yow ki yàlla yónni day sa dàlli soobee ngi ci ci saa si mu dindi dàll yi saxaaba it ñoom dañu nekkoon ku ko topp lool ñoom it daal di dindi seen dàll bi mu paree mu leen man jër woon ngeen dindi seen dal ndax man jibril moma wahyu na ma kat sa dal yi sobe ngi ci kon sobe nañ ci góorgóorlu suñu lay kàttan luñ ko mën moytu rek moy li gën mbokki doomu day ñu bay ci xel mi ngi non kon lab gi dafay am solo lol lol lol lol sax dafa am solo lol bu ko soobee yére yoy ñu leen waxoon nañ koy sol ci nu mu gën a jote mu a nekk yére bu yaraax yére boo xam ne biit comme ni ñu koy gis léegi ay dessin léeg-léeg nga ñëw ci jàkk fekk koo xam ne kii day jël mbubu ñu dessin ci dara nangam ak nangam yooyu it gënut ñu ciy góorlu di bàyyi xel mbubu yooyu di am nataal di am dessin euh, ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax di ko moytu suñu kéemtalaay kàttan incha allah taala julli googu it nga góorgóorlu fexe ba tamit nga daal di fexe ba xibla bi nga fexe ba am ko saa yo foo mën a dem julli jot góorgóorlu nga ittewoo bi ne direction bi mu ne haysuma kuntum fawluhu wujuhukum chatre masjid al haram kon fépp fa ngeen mën a nekk rek na ngeen fexe ba na ngeen jubal ci kaaba gi muy penku kon defal itte bu baax ci loolu mooy li ñu war a xam toujours fexe ba itte woo penku bi da ci am solo mi ngi noonu mbokk yi ki feebar situation bi nga nekk masal yaa ngi hôpital ñu ne samp ay butéel wala yaa ngi situation bu critique boobaa yow islam tegul yenn coono yi fa nga nekk rek amal yéene nga julli loolu day am ndax nit dana toll foo xam ne fii ci ay ka islam dafay am ruxs daf koy ubbil bunt yoo xam ne ay ngànt lay doon ndax mënoo ko fa nga toll ndax ba ngay wér di mën yaa ngi doon def sa kéemtalaay kàttan waaye bu ngànt amee dañoo xam ne ngànt am na léeg nga nekk ci insécurité situation yu tar mi ngi noonu nga nekk ci tukki nekk ci oto wala ci avion yooyu day am yonent bi sallallahu alayhi xam ne daana ne ci tukki waaye bu boobaa lam daa def mooy fu eh, kii ba jubal rek foofu lay jàppee mu nekk penku mbokk yi doomu ndey ñu góorgóorlu ci jàmm yàlla gi ñu nekk tollu ci muy koor gi koor gi waxoon nañ leen sànq ci tàmbali koor ak julli ñoo ànd kon yow miy woor te doo julli yow miy woor wax dëgg fa yàlla eh, te bu julli jotee doo julli amoo soxla ci julli na nga tàmmoon bu njëkk sàggane woon julli nga yaakaar ne moo war a wéy mbokk mbokk nañu góorgóorlu xam ne julli même bu dul koor dañ ko war a def rawatina ñu nga ne ci koor kon yow mi wootudoo julli sa koor googu demul fen nañu góor góorgóorlu waajalaat suñu bopp nañu góor góor lu xam ne jàmm yàlla yi benn du dem bàyyi moroom ja benn du dem bàyyi moroom ja ba tax na nañu tàggatuwaat góor góorlu waaye ñu defaat benn xisaab ñu réglewaat xool koor gi waxoon naa sànq bi ñuy tàmbali kenn ku ne ci ñun tey war nga mën a def benn xisaab defaat benn sa xool bi koor gi tàmbalee ba fi ñu toll nii fukki fan ak juróom benn wax man lan laa yugugum lan laa yugugum ci koor gi ba fekkee xëy na xiif ak man rek des na góorgóorlu mbokk weer wi des na waaye nag bu yàlla defee nga yëg ne wax dëgg fa yàlla day commencé naa di def ay jéego ci ay mbir jàkka day ku ma jafe woon la dem ca mbooloo ma lu ma jafe woon la wa kaza wa kaza bu boobaa alhamdulilah yokkal yokkal te xam ne nañu góor góorgóorlu xam ne jaamu yàlla yi ñuy def yàlla da ciy tenir compte kon nañ ko sellal góor góorlu ko bañ ko def ci façon biñ ko bëggee waaye façon bi yonent bi sa sam jàngale ndax yàlla la ñuy jaamu waaye yonent bi salaa sam nag moo ñuy wax moo ñuy wan naka lañ koy jaamu mbokk yi doomu ndey ñu góor góorlu ci fan yi ñu góorgóorlu ci bis yi ci guddi yi yokk suñuy jaamu yàlla xam ne weer wi day mi ngi ci yoon gan gi mu ngi ci yoon de nañu góorgóorlu suñu kemtalaay kàttan xeet yu baax yi xeet yu yiw yi ku ci nekk góorgóorlu sa kemtalaay kàttan te xam ne weer la woo xam ne wii eh, borom subhanahu wa taala da koy ful xam nga ne islam waxoon naa ne bu dee benn bu baax fukk lañ lay fay bu dee koor nag borom subhanahu wa da koy ful ba juróom-ñaar fukki yoon ba sax lu ko so kon mbokk yi ñu ngi ci jamono yi lël ñu ngi ci jamono yoo xam ne nañ góor góorgóorlu yokkaat suñuy effort programme bi ñu leen waxoon góor góorlu ci jàkk yaa ngi def waxtaan jàkk yaa ngi def conférence jàkka yaa ngi nangam fexeel nga dem ci jataay yooyu nga jariñu ci ndax koor yàggul koor yàggut góorgóorlu sa programme lum xat-xat-xat fexeel ba programme Quran na ci dugg fexeel ba nga xool yow sa waxtu fan nga am fu vide nga fay jàng Quran fexeel sa waxtu ban bis nga am yan waxtu nga am nga fay dugal sa programme zikr bal sax defal ay jokk say mbokk def ay juhud ay jéego pour mën a jokk say mbokk loolu ak it seeti ñi feebar sa dëkkandoo yi feebar tawat nga xamoon la ñu nekk fi koor nga profité ci e nga dem yu mel noonu dem jokku leen mbokk yi doomu ndey ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala mu defal jàmm ñu ngi ñaan yàlla yàlla nangul suñu koor ñu ngi ñaan li jot a war yàlla yàlla nangul ñu ko koor gi bi jeex yàlla nañ fi fekk yàlla mun a suñu koor gu mujj waxtu julli incha allah taala ñu jaar ci bu gaaw e, suba gi ñu ngi salaatu 6 heures moins 15 minutes ñu ngi julli 6 heures 0 minutes kon waxtu salaatu 6 heures moins 15 minutes la incha ñu ngi julli suba 6 6 heures 0 minutes tisbaar ji mi ngi ci 2 heures 15 minutes takkusaan mi ngi ci 17 heures timis mi ngi ci 7 heures 30 minutes géej mi ngi ci 8 heures 30 minutes ñaan yàlla yàlla defal jàmm def ko ñëpp yàlla nañu sàmm sàmm jàmm salaamaaleykum wa rahmatulah صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرغها إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله الكرام ان شهر ان هذا الشهر كله كل وقت عظيم ومبارك فنهاره صيام وليله قيام اوله رحمه ووسطه مغفره واخره عتق من النار وهو موسم تورد فيه أغلى السلع بأرخص الأسعار من أدى فيه خسلة كان كمن أدى فريدة فيما سواه ومن أدى فيه فريدة كان كمن أدى سبعين فريدة فيما سواه ويعد هذا الشهر المبارك من أعظم دورات التدريب على فعل الخيرات وترك المنكرات من تهجد وتراويح وذكر وتصبيح وتلاوة القرآن وجود وصدقات وأذكار ودعوات وترك الغيبة والنميمة والقول الزور عباد الله الكرام من مر علي هذا الشهر المبارك ولم يستفد منه مغفرة ذنوبه وتكفير خطاياه فهو شقي بعيد من الله كان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فقال محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ولم يغفر له فأدخله الله النار آذن الله من ذلك وجعلنا من الذين أدركوا حقيقة الصوم وتعلموا من آدابه وأحكامه وعبروا أيامه ولياله بالعمل الصالح بالله في الله لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أرشف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في الرمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد ما لا يجتهد في غيره لقد سن لكم في ختام هذا الشهر المبارك أعمالا مكملة له زيادة لكم في الخير منها زكاة الفطر للصائم من اللغو من اللغو والرفث وطعمة للمساكين اللهم ألهمنا معرفة فضل هذا الشهر المبارك وإجلال حرمته وأن على صيامه بكف الجوارح عن المعاصي واستماعها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 ولادي إلى هذيك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قولوا إلى الصلاة يرحمكم الله